mbokki internet yi ñu ngi fii ak euh, grand serigne de Dakar euh, Pape Diagne mi nga xam te ni moo fóotu sunu baay euh, grand serigne de Dakar El Hadj Bassirou Diagne ñu fekk ko ci Cambérène ci appel bi ban appréciation nga am ci appelu ren bi cent quatre cent quarante quatrième édition. asubillahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim. wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi xanaa di leen nuyu nag ak di leen sant ci seen taxawaay santaat yàlla bi mu na mayee kattan ak wér ba nu dajawaat fi te yàlla na sax yàlla nañ fi daje déwén appel bi nag comme ni ngeen koy déggee aji boo daaye laay la woote yàlla la ko woote Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu wassalaam wootee ko fan fii ci Ndakaaru ci lum ñu woo mooy yàlla ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu nag mooy li nga xam ni moom la yàlla santaane pour julliti di daje daje boo xamante ne bi ci farata lay su lay sukkandiku ndax bis yi Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam daf ñu ci fàggul lu bari fàggul ñu ci yërmande ci yàlla faggul ñu ci jàmm ci yàlla faggul ñu ci ràmm safaatal kubra ràmmuk jàmm ñu ëllëg mu sag loolu yëpp daf ñu ko ci faggul kon képp koo xam ne jullit nga te sa jot may la ko boo fi mënee agsi boo fi rotee it di nga bokk ci ñi nga xamante ni bii dañuy taataan ci yiw yi nga xam ni moom si Seydina Limaamu liggéey ngir jullit yëpp kon loolu mooy li nga xam ni moom laa ci gis di mooy li ma ciy apprécier apprécier ci ni aussi daje la boo xam ni julli yi da ngeen yendu ci ñaan xëy ci yendu ci fanaan ci yeewuwaat xëyaat ci loolu te nag réew mi soxla ñaan jullit yëpp soxla ñaan kon ñaan yooyu yàlla na ko sunu borom nungu sëmbaxtal ko ci biir Sénégal réew mi soxla ñaan euh, jullit ñi soxla ñaan ñu gis ne actuellement dëkk bi dafa xaw a jaxasoo trop trop trop ba ngay porteur de voix di kilifa du ñàkk ay kàddu yoo yooyu indi jëmale ko ci population bi waaye itam jëmale ko ci kilifay réew mi. wax dëgg yàlla dangay sama xarit lool di sama rakk ñu tàmm di daje fii waaye wax ji may wax nag mën naa ni. tàggoowuma ndax man damay faral di tàggu sama bokk lébu yi bala may wax ci benn situation ci réew mi waaye nag comme réew mi daf fi tollu nga laaj ma ci bañ cee wax sama xalaat du farata waaye nag li ma lay ñaan mooy lii may waxit it su ma sañoon lépp ñu dégg ko ni ma ko waxee réew mi nañu jàpp ni coow lii fi am lépp ci coowal politik la te sénégalais yëpp nungu loolu ni xeex bu fi am ak xuloo bu fi am jógewul ci këru diine yi jógewul ci waasu jógewul fenn lu dul ci way politique way politique yi nag war taxaw seetlu seen bopp ndeem lii ñuy wax ni bëgg nañu réew mi ba mu jaral leen ko waral na leen a jaral que ñu bañ a taal réew mi ndax kët kuy xëccu nguur dangay ñaan yàlla xëccu ko ci jàmm fekk nguur gi ci jàmm nga mën koo jël ci jàmm liggéey ci jàmm li fi xewit di tax ma man cee wax seeti naa kilifa diine yi seeti naa woy politique yi laaj leen it li xew ci biir seeti parti bu ñuy wax parti démocratique sénégalais muy PDS te muy kii waral coow li déglu leen laaj leen wax leen lan moo xew ñu wax ma ko seeti naa président de la république laaj ko mu wax ma li xew li ma xam nag laa bëgg a wax ak sénégalais ci sa micro tey. élection dafa jot candidat yi bari ñu dem ci lu ñu wax parrainage te parrainage bi ñoom ñoo ci déggoo woon ma fàttali ni. ba ñu demee ca dialogue national ba damaa waxoon ni commission politique bi nañ ko ubbi ñu am ay kilifa yu fa nekk pour bu ëllëgee bu ngeen di xuloo ñu xam lu xew ñoom politiciens yëpp ñu lànk ni duñ ko ubbi te ñu ngi may dégg te man maa wax loolu te kenn ci ñoom du ko weddi ba dialogue ba jeexee ñu daje ca président de la république wala jox rapport bi borom réew mi ba ma fa jëlaatee kàddu dama ni leen maa ngi leen di fàttali ni leen newoon nañ leen ngeen ubbi commision politique bi ngeen lànk ni du ngeen ko ubbi tey bu ëllëgee bu ngeen di xuloo ku leen di atte fa lañ toll. lii lu am solo la ndax ñoom nañ jàpp ni réew mi nu ko benn parti politik moomu réew mi. PDS nag ba ma fa demee laaj leen lañ ma wax laay wax Karim Wade. war naa mën a bokk ci élection yi ndax ñun Karim mooy sunu candidat laaj na ñu këyit yi ñu waroon laaj yëpp joxe nañ ko ban ni Karim bokk na ci ñaan fukki yeeg benn ñu xëy suba ne nañu indi nationalité nee booba Karim joxe na nationalité ba ñu laajee preuve mu indi décret waaye man nag damay wax ci lu jiitu loolu li jiitu loolu mooy sang ba ca Touba sëñ Muntaxa Mbakke yal na ko yàlla dolli wér ak sutura may ko fan wu gudd mu yàgg ci kaw suuf ci mbaaxam moo ñëw fii ci Ndakaaru ca Masaalikul Jinaan woo fa président Ablaye Wade woo fa Macky Sall jubale leen jubale boobu Sénégal gépp xool seddoon na ci ndax ñëpp ko doon sàkku ci jamono yooyu booba ak léegi it Ablaye Wade waxul ñu ni ca biir waxtaan Karim Wade nañ ko bàyyi mu àggale liggéeyu baayam président de la république jóge fa woote dialogue waxtaan ca laa waxtaan wa la nga xamante ni bii mooy la fa nekkoon mooy fexe Khalifa Ababacar Sall bokk ci élection yi fexe Karim Wade bokk ci élection yi loolu moo fa amoon kon ñoom ñoo ko nungu loolu moo gën a fort constitution moo gën a fort loi moo gën a fort texte parce que ay nit a koy bind waaye ay gor ñoo tëju ci biir nekk ni lii moo war a nekk beneen bi amul kenn kuy sénégalais fii ci réew mi te xamoo ni Karim Wade liggéey na ci gouvernement sénégalais te kenn mus ta wax Karim mii du sénégalais mus am musu am ba bi muy génn réew mi ñu di ko fi génne di ko atte tëj ko ci kaso bi lépp dañ ni mi ngi jóge ci ministère am yi mu yoroon kon waxtaan wax dëgg cala la man nag du ma juriste droit bi sama yoon nekku ci waaye xuloo am na xuloo bi mu amee PDS ñu dàq seen candidat lii ñu def la ñu mënoon def am na yeneen candidat yu ñu dàq te mënuñoo def li PDS def lu ko waral PDS dañu am lu ñuy wax groupe parlementaire ñu ni seen candidat labaj da cee bokk dañoo ger premier ministre nangam am na kon ñun lii dañ koy yóbbu assemblée nationale ñu leeralal ñu ko ñu def commission d'enquête parlementaire assemblée nungu ko ñu def bureau bi lii nag PDS sama koy wax ñu xëy teg ci ay fan ginnaaw bi conseil constitutionnel bindee bataaxal ni duñ leen wuy si waru leen te lii daañu ko diggaaleeg ñu ko def ñu ni kon ñoom nañ seet weneen yoon wudul rek enquête parlementaire bi kenn ca magistrat yooyu xëy porté leen plainte ñoom ñu ni plainte boobu bu procureur ubbee enquête judiciaire enquête parlementaire bi dootul nekk kon ñoom ci seen xeex ñu ni nañu génnaat def projet de loi pour demander le report des élections ñoom PDS ñoo ko dugal mais loolu mooy li am te PDS loola yoonu may ko ko ñuy wax ci constitution bi constitution moo may PDS député laa waxuma PDS sax député boo xamante ni bii am nga jaaxle ci lëf ni di nga ko saytu di nga ko seet bu ñu ko nungoo ci biir bureau assemblée nationale te loolu mooy li am. ñu xëy ni am na ci jeneen jigéen du wax Vardini Rose di sama jigéen yàlla na ko yàlla defal jàmm di sama xarit ñu ni kat kii mënatul a bokk ndax am na carte France am na carte d'identité waaw ku ni élection yii ñu jëm njaal benn loolu leer na mais PDS du parti bu ndaw ndax nag wax dëgg yàlla waras naa nungu Karim Wade Ablaye Wade def vingt six ans de combat dans l'opposition yore réew mi douze ans jur doomam ci geño ñu ni du sénégalais kuy wax loolu waxoo dëgg kuy wax loolu waxaloo yàlla kuy wax loolu naa feq nga bi Ablaye Wade di jël Karim Wade di ko def ministre de la République sénégalais yëpp ngi fi woon amul kenn ku wax ni Karim miiru du sénégalais nekkam français am du lu mu laaj tubaab la ndax ay tubaab débat bii ñëw ni ci réew mi nag tax na ñi nga xam ne ñu ngi ci ñu ay sénégalais yori deem ay bitim réew man mii sama doom américain la man mii di wax ak yéen sama taaw américain la waaye maay bàyyam ku kon mën a teree nekk sénégalais texte nag am na lu ko ëpp doole ndax texte nit a ko bind le droit c'est l'histoire histoire bi mooy Ablaye Wade jur Karim ndax nag waa PDS dana nungu ñu jël tarib Karim Wade tër ko rendi tëraat rendi tëraat rendi ñëpp ni pat pataaral loolu ci naafeq la bokk élection nag kenn ci ñi koy sàkku amoo marché ba ni yaay gañe ku ko wax danga ngaa naa féq ku ko wax gëmoo yàlla ku ko wax da ngay fen ndax kenn la yàlla mayul boobu xam-xam ay njort rek fi am kon nag bu xuloo amee ca loola ñu ne nañ ko saytu ñoom ñëpp dañu war a d'accordaat ci ni safara waru fee takk waaye man xam nga lu ma xamul te nu nanguwuma ko ku jog ni ne réew mi tàkk ku naan réew mi tàkk ak taaleen réew mi bëggoo réew mi doon nit ku baax te doo am doo mottali doo am ndam kon nag kilifa yi nañ leen ruus sëñ Muntaxa Mbàkke ñiy wax ñëpp kum ci ne woon taalibe yi bu subaa indil ma leen Tuuba des na la fotoŋ dugal la ci oto indi la ci jëmmam te doo ci man dara te ma ngi ni tekk kaaral sëñ Mbaye Sy Mansour bu noon taalibi Tidiane yi diw mii bëggatuma damaa bëgg ngeen jàpp ko indil ma ko balay ngoon ñu foto la yóbbu Tiwaawan te ñu ngi ni pat pataaral parti politique boo xam ni amoo député amoo maire amoo dara te réew mi nekk ci te li ma ci gën a neqali rek mooy li ma xam ci biir te loolu laay bëgg a wax bari na ci parti politique yi ñu ma seeti man ci sama jëm ñu ngi may dégg ñu ne ma grand sëriñ ma naa ñu ne ma dañ dàq élection yi billaahi wal kitaab am na ci kilifa diine yu ma seet ñu ne ma grand sëriñ lii nañ ko dàq ndax jàmm li ñu bëgg bale loolu di am mais lan mooy dàq élection ba ngeen bëgg fi taal réew mi élection mooy lan am na lu gën élection mooy réew mi nekk ci jàmm ñu ñii ñoo gën élection fuuf te yeen ñi bëgg a taal réew mi suñu ay carte ngeen soxla pour dem élection élection bu natt am ca jàmm kenn soxlawu ko société civile bi nag maa ngi leen di yedd ndax gis naa leen ngeen woote aw ay société civile woote aw ay xanaa dañ leen a jënd bopp yor sam réew war a le war a jaay war a war a a war a fexe ba réew mépp nekk ci jàmm yow nga ne yow yaay jiitu yaay woote ay te société civile boobu am na ñu ci dem seeti Macky Sall ni ko processus électoral bi dañuy yàlla dimbali dañ ko arrêté pour ñu dem ci yeneen élection yi normal am na naa fekk gi ñuy doxee nag la ñu war a teg ci suuf wax ak lu dul dëgg bu guddee ñu raataloo ànd seen biir waxtaan génn fenn sénégalais yi dafa doy. lii mooy li am kon jàmm nag ñaara koy dox jàmm jàmm ñaara koy dox politiciens yëpp bi dee dalee am ba léegi gisoo ci kenn ci leader yi ku doomam dee amul. dee am yëpp kenn laa wax ku ci leader koo xam ne leader nga sa doom dee amul amul waa léegi nag ñoom daal problème boo am ci réew mi taal koy faj taal fajul dara te nag réew mi bu tàkkee ku defin di ci mucc nax nga sa bopp kon man li nga xam ne moom laa ci wax mooy ñoom ñaata yoon lañu la ñu baale yëgoo ñaata yoon la ñu baale yëgoo ñoom politiciens sénégalais yi ñaata yoon baara yëgoo boobu nag yamale leen ko ci seen biir te ngeen dox ko seen biir te bàyyi réew mi ngeen di bëgg a génne ni da ngeen leen di taalloo réew mi réew mi kenn du ko taal ku bëgg réew mi ku bëgg réew mi da ngeen leen taal réew mi fukki yoon lu lu jàmm jàmm ku gën ku taal réew mi dafa ni Macky Sall nga ko def da ngay nax sa bopp Macky mii bu réew mi doon tàkk avion présidentiel bi lay dugg dem fu ko neex. kon dama bëgg ñu xam ni wax jii ñuy wax waxu picc la réew mi kenn du ko taal warte takk te képp koo xam ne yaa ngi koy nësër yàlla boo am jàmm lan mooy élection ku wax fëgg sa dën naan waaw le Sénégal le Sénégal est lii le Sénégal est là les États-Unis les nangam nangam mais dañ waxante dëgg américains yi capitaine lañ tot ñoom amuñu ku ñuy jàngal démocratie élection dafa jeex ñu dem toj capital tasar ku ñuy jàngal démocratie fii c'est des démocrates Sénégal ay démocrates fi nekk ñëpp fii ay démocrates ñun ñëpp ay wote ji mais su fekkente ne bii lii ñuy nësër bu demee jur ay waa bu ñu demoon élection ci lii ñu ni diw a gagné ñu ni lu ñuy wax nañu fàttaliku nag nag réew mi dafa am ñu nekk ci biti di bëgg mu tasaaroon ndax pétrole ak gaz kon ñun ñi nga xam ne ñoo moom réew mi dëkke ko am ci njariñ ëllëg duñu nungu réew mi takk te it guerre boo gis ci àdduna ci taabal lay mujje Ukraine dafa guerre ak Russe Russe di def délégation Ukraine di def délégation ñuy waxtaan Palestine Damas na ngay waxtaan Israël na ngay waxtaan waaw lan moo tee réew mi mën a dem ci waxtaan ñu waxtaan mais waxtaan wi nag na nekk waxtaanu dëgg mais waxtaan bii ñuy wax ni président woote na ko buñ ko wuyoo tamit commission politique bi dafa war a leer dañ ko war a ubbi constitution bi article yi nga xam ne dara baaxu ci defal lëndëm nañ ko dindi changé ko ay nit a ko defoon mais bis bu ne buñ jëmee si élection am xeex constitution nangam euh, code électoral nangam euh, euh, mais dafa doy nañ ko toj waxtaane ko waxtaan wu dëggu kon man lii moo doon su ma wax di sant nag kilifa diine yi nga xam ne seete naa leen ñoom ñëpp ñu dalal ma dalalu jàmm. li nga xam ne man moom laa amoon lu ma ciy wax te muy lu gàtt mooy gërëm parti politique yi nga xam ni ubbir nañ ma seen bunt ma seeti leen waxtaan ak ñoom waxtaan it waxtaanu dëgg la woon mooy waxtaanu situation réew mi bu tolloo fii képp kuy kilifa gu baax da ngay dox seeti wax li nga xam ne mooy li gën ci réew mi waaye nag li ma dul mooy wax ba pare génn ca la nga wax génn ci biti wax loo xam ne loola amul loolu tamit jekkul rafetul réew mi noo ko bokk mënuñu ko séddoo nan àndandoo liggéey ko ci jàmm ak salaam. élection benn bis la benn bis rek la te ñoom ñiy soxla réew mi ñun ñii bu ñu toogoon suñuy kër ni duñu voté ji kenn du ci falu ci ñoom kon nañ jox cër jox cër bi mooy ñu laaj réew mi ci jàmm. xuloo ko ci jàmm parce que ñoom bis bis nekk ñu xuloo rey ay nit toogaat ci taabal bis bu ne politiciens yi xuloo ay nit dee ñu bari de ñu wëlbatiku dajewaat bis waxtaan ni loola nañ ko jéggalante seen biir mais kon loola nañ ko commencé lii daal laa amoon lu may wax di sant bu baax. beneen bi beneen bi mooy euh, muy grand serigne de Dakar Cap Vert Euh, nga war a am jaal boo war a jaal bépp askan bi nga xam te ni ci gis nga maa ngi sant yàlla bu baax bi nga ma ci posé question démb dama gis doomam saan dugg di démentir parce que dañu maam góor gi lacrymogène na ko rey te yàlla xam nañu loolu du dëgg loolu mooy indi manipulation yi aussi ci biim réew mi ñi nga xam ne ñoo yor média yi nañ ci bàyyi xel maam góor gi suma kilifa la lébu la sama wëllëre baay la ndax man soo baay moo fi jëkk fay mbër un million dama ko daan seeti di ko yónnee ay ndaw ci ay teraanga kon kii gaañu ci man la bokk xanaa di ko jaal bokki Lebu yëpp région de cap di ko jaalit ñi nga xam ne ñoo yëngu ci làmb ji muy promoteurs yi muy mbër yi di wax ci jikkoom ñaar ku gëboon Seydi Jamil la jullit àqan la woon ku laabiroon la ku amoon jàmm la yal na yàlla wàcc yërmandeem ci kawam te sàmm njabootam asalaamaaleykum wa rahmatulah. ne euh, rédaction tam ñu ngi jaar ci yow di ko jaal askanu lébu yëpp itam. jërëjëf yal nañu yàlla wane la waat ci jàmm di kontaan tamit si seen liggéey Sénégal yàgg nañu nous sommes des partenaires euh, di leen ñaanal euh, yàlla dolli sutura ndax média bu bu ñu bàyyi xel la. Euh, kii di wax Babacar est un conseil coutumier mooy chef de pencu cëriñ sanc ba euh, dañu bokk ci sama staff bi nga xam ni euh, toujours ñoom laay waxal bala may tàmbali lu mel ni te comme ni ma la ko waxee tey tàggoowuma bi muy wax tey ko waaye sama diggante yow yow lu may defaral rek ngay def Euh, loolu c'est vraiment lu lu génn la rek ci émission bi waaye du sa coobare du sa pexe du pexe pour def ci lana maa ngi la ciy remercier baax di wax ni dafay lébu rek di ko lébu la waxee nga comprendre rek ko noonu maa ngi lay sant baax dina gërëm merci beaucoup.